yàlla dogal na ñoo ko àndandoo woon ak ñoom ne ci réew mi ak bitim réew yépp nag muy ñu nu bokkal diine lislaam jeeg waa jàngu beeg ñëpp kuy doomu aadama te ne ci kaw suuf ñu ngi lay siyaare ci bis bu tedd boobu ñu génn di ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla defal euh, jaamu yàlla bu nu nangu li mu ci diggee itam yàlla nañ ci dajeek moom ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aj Babacar tey ñu woo leen rek ngir am tuuti <clears throat> waxtaan wulu bu da waxtaan ak waa réew dañu koy tënk rek ci kàddu yu gàtt gàtt xam naa ne du yàgg ndax toogaay bi ngeen toog xaar yàgg na waaye wax ji moom li arab yi ni xayri kalaami maa xalla wa dal la ca lañ koy tënke mooy day gàtt lool te tigtalu nuyu suñu kilifa yi ne ci réew mi yépp te diine lislaam bi tàmbalee ko ci ñoom ndax dañ di seenu njaboot yàlla nu ñuy doomi daara ñu yilif ñu ci diine ji waaye buñ leen nuyoo danañ jël nuyoo boobu jàllale ko ci kilifa aada ak kilifa adduna yi nii nag ki fi nekk yàlla teg ko ci bopp askan wi fi ñu toll nii jëm vint deux mille vint quatre muy njiitu réew mi nga xam ni tey def na lu rëy loo xamante ni àdduna sépp ñu ngi koy rafetlu di ko ci félicité di ko ci ndokkeel waaye ñu koy ndokkeel itam ñun ci sunu turu bopp di ko ñaanal yàlla itam yàlla gën koo defal jàmm fii vint 2024 gi mu jëm lépp lu ma fi sumb te yéene ko te wóor nañu lépp ci lu rafet lay doon ak njëkk rek ndax li mu def ku ne xam na ni dara du ci toftalu lu dul lu rafet ak lu yiw fa law ndokkeel ko ci kàddu googu nga xamante ni yëkkati na ko bërki démb di troisième mandat bi nga xam ni askan wi réew mi ñëpp li ëpp ñu ngi doon xaar mu ne waaw wala déet waaye mu am ndimbalul yàlla ndax lenn li ndimbalul yàlla la. waaw olof yi dañuy euh, sëñ Abdou Khadre da daan wax ni euh, jàmbar amul ku ndimbalee am. président Macky Sall lii mu def ndimbalul yàlla dëgg la am def ko kon ñu ngi koy félicité di félicité ñi mu àndal ñëpp te di leen gërëm ci taxawaay bi nga xam ne ànd nañ ko ak moom ba yàlla dogal tey mu dénkaane wala mu wax kàddu gu am solo gi nga xamante ni wax na ko yeewi askan wi di sant président bu baax ci taxawaay boobu ñaanal ko yàlla defal ko jàmm ak sutura xam naa ne ak Babacar li mu wax léegi di wax waa presse bi nekk fondation bii nga xam gis neen ko suñu ginnaaw muy fondation njariñ li ñi xamul dañuy jàpp ni turu fondation bi ñoo jug ngir lancé appel waaye ma leeral léegi ni fondation bi moom yàlla dogal na jiite nañ ko ay at yàgg na ubbi nañ ko groupe whatsapp boo ay kilifa ñoo ci nekk di ay sëriñ daara di ay boroomi xam-xam waaye di ay kilifa yi diine yi ne ci biir fondation bi ñoom taxul ñu jug fondation bi yëkkatiwul ñun ñoo jug suñu jugug bopp jugug individuellement en tant que citoyen sénégalais fas yéene lancer sunu appel ci ñun la la concerné loolu mu leer. doonul ku ne sunu ginnaaw doonul ku nu ku nu ku ku nu ku nu ku waaye du kenn koo xamante ni it pour ñuy déglu ak ñu war a yóbbu xam ni kii di wax di Modou Diop Ndiaye xasaayit borom njariñ li amul kenn ku ko wax loo moom moo jël engagement am jël engagement boppam responsabilité boppam fas yéene wax en tant que citoyen waaye wékk ko it ci kilifteef ndax ñun ah, ni ma ko waxee léegi rek dañ di ay doomi daara am ay kilifa laata ñuy toog di wax ak presse bi wala ñu leen di dajale it waxtaan nañu ak sunu kilifa goo xam ni ku nu gën a jege ci moom amul ndax mooy sunu wéyjur di sunu sëriñ di sunu lépp mu dénk nu kàddu yoo xamante ni it incha allah fas yéene nañu koo jàllale as as ak askan bi incha allahu rabbi loolu rek lañ ci doon ubbi leeral xamal leen ni daal fondation njariñ li maa ko jiite mën lan teg ci bopp bi waaye jataay bi du caagi ni fondation bi lañu woo ngir ñu wax ndax mbir la moo xamante ni bala nga cee woo mbooloo mi nga àndal da ngay jël sa responsabilité bopp ba noppi wax ak mbooloo mi nag ginnaaw boo waxee sa waxi bopp ba noppi nag ña ca déggoo ak yow dëppoo ak yow xalaat fas yéene ànd ak yow ca loolu nga nga nga nga nga nga continuer sa sa sa mission ci loolu nga jël engagement. engagement bi nag du dara mooy fas yéene rek wax ak waa àdduna wax ak itam sénégalais yi wax ak itam. képp koo xamante ni yàlla dogal na am nga am xel tey xalaat ndax fi réew mi toll nii président Macky Sall waxam ji mu wax bett ñenn ñi ñenn ñi bettu leen ndax ñenn ñi ñax kuréel yi ñaari kuréel leen ñii xamoon na ni lii lay wax ñii jàppoon na ni du wax lii am ñoo xamante ni ñu ngi ci diggante ñaar yooyu kumpa googu jàpp mu wax yeewi askan wi fi mu waxee ñu ngi woon ci ay santé di liggéey am foo xamante ni bu nu fa yeggee day dem bàyyi réew mi loolu war a continuer tranquillité gi nga xamante ni président Macky Sall bàyyee na ko wala waxee na ko fi mu toll nii réew mépp na ci jàmm instant bi nga xamante ni tàmbalee ko ci diaspora bi surtout ñoom ñoom laay waxal li tagga témb woon suñu diggante ak ñoom muy tukkikat yi nga xamante ni ñun waroon ñëw waroon a ñëw fii tey def fi seen i seen i seen i vacances ndax ne xam na ni ñu ngi ci ñu ngi ci ay ay vacances fi ne ci dugg nañ ci weeru vacances yi weer yi ñu jëm muy septembre ak ya ca aju gan ñu war na loo ñëw muy ay étranger ñooñu amoon na nañoo tiitaange laa tey président di wax waaye ñoom ñëpp tey seen xel dal na ñi nga xamante ni yor na seen i seen i seen i bien wala wala wala seen i financement waroon na ñëw ci dëkk bii seenum xel dal na ci senegal ni réewum Sénégal kat li taxoon ñu xaw a am tiitaange ngir ban faa dugg di def dara loola tey ki nga xam moo jiite réew mi di président Macky Sall yeewu ne nit ñi ubbi na porte yi diaspora bi ñu yeew xam ni ki war a doxal loolu ëllëg ginnaaw 2024 war nañ koo tànn war na noo xalaatin bu baax a baax xam ni réew mi du réew moo xamante ni ku jug rek tàllal loxo coow topp la tàcc yi bari sa ginnaaw mbooloo mi fëlëx fëlëx yi ñëw jébbal la réew mi du demee noonu faaw xalaat mi ñëpp jàngat xool ki nga xamante ni sunum xel dal na ci wala njortu na ni ni xam-xamu yoru réew mi ngi ci moom am na itam capacité yor ko fii président Macky Sall toll ci ay liggéey ak yi chantier bu bu ñëwee mën koo yeggale réew mi mën a continuer nekk ci jàmm tranquillité bi mën a continuer bañ a doon loo xamante ni rek président Macky Sall bu fi jógee 2024 ki fii ñëw day doon koo xamante ni day tàmbali à zéro warut a demee noonu li fi président bàyyi lu muy continuer la ndax président Macky Sall bi mu fii ñëw dafay bàyyi ay dafay fekk ay chantier ñun ñëpp xam na nañu ko fekk fi ay chantier ñëw continuer chantier yooyu yeggale ko ci jàmm yenn yi mu ko am yéene yeggale ko yàlla dogal mu wax waxam ji yeggagun 2024 kon li war ñun senegal yi war na noo xool ki nga xamante ni bu président Macky Sall demee ci jàmm ñu jox ko sunum réew réew mi nga xamante ni moom la yàlla dogal tey jii président Macky Sall jóge fi ci war fee jóge ci jàmm ak salaam bu demee ci jàmm kin fii teg continuer jàmm jooju ndax réew mi di senegal lu dul jàmm jàmm ko gi jëg jig Serigne Abdou Lahad Mbacké woon réew mii di Sénégal ku jàmm loo fi mën di indi lu dul jàmm dina wëlbatiku dal sa kaw kon ci gàttal loolu dafay wane ni réew mi du réew mu fitna wala réew moo xamante ni nitu fitna da ko yor nitu jàmm rek moo ko mën a yor loolu nag moo taxoon ma ne woon tey naawoo woo bi ah wax ak ñoom wax ci sama turu bopp jël sama responsabilité bopp fas yéene it bu kàddu yi daanoo dinañu continuer fas yéene liggéey ci ginnaaw kàddu yi ndax bu wax daanoo moom jëf rek a fay topp ñu fas yéene ànd ginnaaw kàddu gi liggéey ndax ay ndaw lañu tollu lañu ci itam ah, dox war a wut li ñuy xamante ni moom dañuy sàkku muy teg si ki nga xam ni moom la ñu yaakaar ni bu yàlla dogalee 2024 président Macky Sall dem bu nu ko joxee réew mi dana continuer ci tranquillité gi président Macky Sall bàyyi santé yi ma fi naaloon bëggoon koo yeggale kooka dana ko yeggale ba war cee tegaat yeneen naali boppam ndax yëf yi wërta yem rek ci président Macky Sall jóge na fi danoo war a wuti koo xamante ni nit ñi xamuñu ko wala koo xamante ni gan la ci dëkk bi déedéet war nañoo xoolaat ndax réew mi am nañu ay boroomi xam-xam am nañ fi leader yoo xam xam nañ leen démb tey doog a ñëw am na ñoo xamante ni ay liggéeykat lañu di ay boroomi xam-xam di nit ñoo xamante ni am nañu capacité bi yor réew mii di Sénégal su ko defee loolu ñu ñëpp ñoo ci bokkandoo yem Sénégal di koo xamante xoo am daa ñàkk ku ko jiite déedéet ñàkkuñu ko am nañ ñu fi ne mën koo jiite ñàkkuñu ko. te it duñ ko jéggaani ji loolu mu leer doonul moo xamante ni dañuy toog di xaar 2024 jot koo président Macky Sall jógee ñu ngi xaar at gan gu jóge ci àll bi ñëw du ko joree déedéet am na nañu ko ay doomi dëkk bi juddoo ci dëkk bi yaroo fi màgg fi di ay doomi sénégalais bu ko defee loolu moo tax ma ni tey naa wax ak presse bi euh, jël itam engagement bi muy jël xam naa ni gars yi ñu ngi xaar rek ma yox tur bi <laughs> waa moom war a dégg waa loo loolu loolu loolu Serigne Babacar maa ngi la ciy sant bu baax ci laaj boobu ndax réew mi fi ne dafa toll foo xamante ni dafa laaj ab defaraat après 2024 continuer ñun ay doomi sénégalais lañu juddoo ci dëkk bi yaroo fi màgge fi mu mosunoo génn réew mi fi la ñu jànge ginnaaw bi nu nekkee ci suñuy wuy wéyjur ba toll ci dalum njàng dem daara ñëwaat bu dee Cees gii fi la ñu juddoo yaroo fi màgge fi suñ lépp fi lañ ko defee génn moom lenn rek lañ ci def muy génn jàngi ak génn wuti liggéey mu jéem a am lu ñu terle ak sunu njaboot sunu wéjur del siwaat toog amul leneen Sénégal amul boo xam ne jéggi nañ ko dem ko dafa toog wala ñuy yaakaar ci dëkk booba dara wala ñu fay jéem a am lenn lu sunu lépp Sénégal la nag arab yi dañ ni al aqrabul awla gën a jige gën a yay ñun yi am nañ koo xamante nii wér na ne liggéey na ci réew mi loo xamante nii wala am am na xam-xamum doxal réew mi yor ko yorin woo xamante ni ëllëgati si biir du ñu ci am rëccu du ñu ci am ngaañ du ñu ci amit loo xamante ni lenn daf na ciy dal lu dul jàmm ak salaam ak naataange te kooku du kenn ku dul président Idrissa Seck maanaam président Idrissa Seck mi nga xamante ni moom la yàlla dogal mu nekk ci réew mii di doomi sénégalais di doomi Sénégal dëkk ci réew mii di Thiès. ñun waa Thiès nag sax mën naa ne mën naa wax ci yéen mën naa wax ci ci mën naa bañ wax ci yéen waaye li ma bëgg ñu xam ko daal mooy yéen waa Thiès jël ñuy àddu di jëm ci yéen sénégalais yi laay waxal man ndax Thiès li président Idrissa Seck def jëlu ñu fi répété xam nañu ko gis na nañu ko mi ngi fi ba tey santeem yi ak yéeneem ci Thiès ba tey ku fi man di ñëw ba ci ñii fi ne tey nekk ci maire yi ci santé président sa Seck ci la nekk di ñàbbaas di continuer euh, rappelé kenn defagu fi dara lu bees ba léegi nii ci xam-xamu président Idrissa Seck ci la nekk de la bale di continuer dem loolu na leer kenn defagu fi lu bees kenn ëndeegu fi loo xam ne da nga ni lii maa ko sanc wala maa ko sos sosu président sa Seck ba léegi ci la sa ci la seesuwaay yi nekk di continuer léegi nag ki def loolu 2004 ba léegi ba nga ko joxee loolu sancee Cees yi mu taxawal ko ubbi Cees yaatal ko yàlla dogal Cees ku ne gis na ni mu demee tey jii ku ne mi ngi daw di ñëw Thiès soxlaawu ta dem fenn port yu ubbi na ko président Idrissa Seck porte yooyu mu ubbi 2004 ba yàlla dogal tey ñu nekk ci 2023 mu nekk fi di boroom xam-xam yor li mu yor ci état li jaar ci loxoom lépp dara mu sa fees bëtam lenn rek la ko deseel ñun senegal yi mooy jël réew mi jibbal ko mu doxal ko doxalin woo xamante ni wir na ma ni bis bu ko defee sunum xel dina gën a dal. réew mi dina gën a am naataange tey réew mi développement dina ci gën a am ñi nga xamante ni ay étranger wu ne ci bitim réew ne ci àll bi dinañu gën a ñeme senegal ndax yàlla may na ko boobu boobu relation te itam réew mi di Sénégal nanu bàyyi xel ni du caagi nag ñun képp ñooy ñooy ñooy doxal sunu bopp. wax leen mois 7 mois ci des nanu bàyyi xel. 6 mois 7 mois du dara mi ngi mel ni benn semaine ginnaaw at ak morom ba da ngay toog ba yàgg ñun la at mi jeex na mu gaaw ci yow mel ni semaine sàkk ak 6 mois ay 7 mois yéen waa diaspora bi ci gën ci yéen tama njortu yaakaar ko ni ginnaaw président Macky Sall mooy tax seenu mu nekk foofa mën a féex na ngeen bàyyi xel bu baax ni du kenn ku dul président Idrissa Seck relation may na ko ko xam-xamam may na ko ak dalam may na ko te it mag mu làmb ba bokkut ak gone guy làmbaatu gone guy làmbaatu te dajagut dara bis bu ñu ko dénkee réew mi bala mooy daj bay defar réew mi boo moytuwul boobu rëcc dina dina fekk jëf rëy président Idrissa Seck man de sama njàngat bu gàtt mooy gisatul ci adduna luy fees ba tam luy tax muy salfaañe wala muy def loo xamante ni dan naan lii bett na do waaw kawe na njortu képp lañ ci dégg ndax loolu mooy sama gis-gis man di insister ci waa diaspora bi ñu gën a bàyyi xel rawatina nag waa M24 ñi nga xamante ni yàlla dogal na lu mbooloo la xeex ngeen li ngeen leen doon xeex yàlla def na ci sutura président Macky Sall nee na du dem kenn déggatu leen lii nga xamante ni moom la président président Macky Sall def fekk si leen ci muy jàmm ji daa war a continuer ñu ngi leen di woo yéen waa M24 ngeen ak 24 F24 la F24 nga xam di ngeen a jóg ngir fas yéenee taxawu réew mi taawu réew mi bëgg réew mi am jàmm dal kooku nga xamante ni moom ngeen dundul ak jàmmi réew mi daa war a continuer de waaye wëruta doon loo xam dañuy dem ba deux mille vingt quatre président Macky Sall jóge fi fitna di yeewu waat fitna waratu la yeewu ci réew mi nanu xool koo xamante ni mag la te daj na lu ne ni teg ak la mu dajeel dara feesul bësam bëtam musta dérapé musta def loo xamante ni dem naan kii li mu def nu mu ko mën a defee ñu jël réew mi jébbal ko ko jàmm jooju nga xamante ni yéen yéen a ko doon wut muy f dellu si waat seen ak kuréel yu mel ni nag ñu ngi leen di ñaan njekk ngeen booloo ñëw ñu ànd bootu ci ki nga xamante ni tey mooy sunu saas ñun waa Sénégal ñun waa Sénégal mooy sunu saas moom lañ fi dese ci koo xamante ni 2024 buñ ca yeggee dina yóbbu réew mi fu kawe sunu njot te mooy président Idrissa set loolu képp mooy li nga xamante ni daal ci gàttal ndax am na ci loolu bu ma ko toppee ci kàddu man damaa yóbbu ci aal ndax ku ne xam na man sama soññee ak samay kàddu damay aalu waaw ndax waa waa waa waa waa presse am na ci ñu ma xamee aal te aal boobu laay bañ mu dop ba ci biir kàddu yi li ci des liggéey la lancé appel sama ñoñ ñi nga xamante ni yàlla boole na ma ak ñoom ñuy samay niti bopp di sama mbooloom bopp ñu fas yéenee taxaw xaar kàddu yi bu jàllee dinaa fa yéenee jug ak ñi ma war a àndal dem ci suñu kilifay diini ji ñi nga xamante ne ñoom la yàlla dénk réew mi ci jàmm ak salaam ñu yor làmpu siraajul muniir bi nga xam ni moom la lislaam soxla dem ci ñoom wax ak ñoom kenn ku ci nekk rawatina Cees gi ñu nekk ëttu kër diine yi fi ne fépp foo xamante ni yàlla dogal na am pénc nga fa kilifa nga fa nekk am nante lanu xamlante nanu am lante nanu sa njaboot da doon dem wax ak yow jóge fii dem ci ci dem ci dem ci dem ci tous les penc réew yi nga xamante ni rek ñu ngi ci senegal di ay kilifa kilifay diine tàmbalee ko ci mboolem penc yi ñu xam ci réew mi yépp ndax ku ne xam ne ni xalifa yi nekk ci réew mi jàmb rek leen tax a jug boobu ba tey jàmm la ñuy ñaan boobu ba tey jàmm la ñuy artu ci réew mi kon bu yàlla dogalee tey ñu toll fii dinañu jug wax leen sunu candidat tamit président Idrissa set fii ñuy wax ak yéen itam wax naa ko waxati ñu bàyyi xel. ne ndawu cees moo dugg di wax président Idrissa Seck mosuma jàkkaarloog moom bët a bët mosuma koo jox ko xaw ma xaw ma ko barki Serigne Touba doomi Thiès laa dëkk Madina Fall gi zone nord yaroo fi màgge fi Ablaye Ndiaye cosaan mi ñëpp xam ci aar bi sama wéyjur mook sama bokk ndey ak kon bu yàlla dogalee tey ma jug di wax intérêt fa jox jox jiituwul dara jiituwul xam nga lu jiitu mooy am yéene ci senegal yi xam ne ginnaaw 2024 gi kenn képp moo nu mën a indil jàmm jooju continuer tranquillité gi continuité bi kenn képp ca loxoom la nekk te mooy président Idrissa Seck moo tax ma jug wax bu ko defee loolu daal ci gàttal danañu jug dugg ci réew mi wax ak réew mi dëkk yi ñu war a fa dem suñ mënee dugg ba ci diaspora bi waa diaspora bi ñi ma waxal léegi ubbee ko samay kàddu dugg fa def wax ak ñoom ñoom ñu xam ni 2024 ñëw na ñëwul jigéen a jigéewul ñu bàyyi xel ni président Idrissa Seck bi président Macky Sall soxlaa bàyyi na lépp dem wuyu ko Covid bi ku ne gis na ni mu taxawee lépp loo xamante ni luy tax jàmm am la leader yi ñu doon xalaat naan bi diggante ma président Macky Sall ñagas ñagas cee am bërët la def ba muy def circonstance bi mu demee ñëpp ni nangam ak nangam mais loolu lépp président Idrissa Seck laytaayee ko jàmm rek. asalaam gi nga xamante ni moom la ñu lislaam jàngal te ku ne xam ne ni lu dul jàmm jàmm ko gën ni ma ko waxee loolu war naa tax ñun Sénégalais yi ñu delloo njukkal président Idrissa Seck. war koo delloo nag wax dëgg yàlla raaya bi nga xam ne moom rek moom la dese ngir ñu jébbal ko ko Sénégal gën a naat gën a dox gën a am jàmm waaye gën a itam tranquillité gii mën a continuer fitna bañ a yowoote loolu daal moo doonoon kàddu yi di leen jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Ahmad waaw waaw Ahmad Bambali Ahmad Bambali TSTV ñu ngi lay ziar di la nuyu di am mbégte lool sa laaj boobu it laaj bu am solo la mooy daanaka ñi ci ëpp ñëpp ñu ngay toog di xaar di déglu.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 ñoom seen kilifa mooy président Macky Sall ni nga ko waxee bi mu fi nekk it wala avant muy wax di yee as di yeewi askan wi ñun yàlla dogal na suñu féete moom ku ne xam na ko aw ñooñu ne itam di suñuy nit muy ñu mu tabb ñenn ñi ñenn ñi duñ fi ne di lim waaw duñ fi ne di waaye bu ñu ci tuddee rek ku ci mel ni honorable député monsieur le maire ba Ngom du maire Agnam suñu diggante ak moom moom bu seetaanee dina xam ñu xam jërut di débat ndax loolu di salaat yooyu moom rek dama daan wax ni moom day tax na yàkkamti wunu wala sax boo dee xool ya bëggunu sax di gis président Macky Sall ndax suñu yitte ji mënu jox ak wàccuwaay bi mënu jox ak teraanga ji nga xam seet dem nañ ba añoon fee seeti ko kon loolu ci gàttal féete na nu moom ndax boo am ak président boo nit boo am àndut ak yaakaar na li naan yaay boo ko bëggul doo bëgg njabootam te président Macky Sall moo leen boole njaboote ñoom ñëpp te ku ne xam ne moom président Farba Ngom ni mu engagé woon président Macky Sall moom ak ku ci mel ni Abdoulaye Dièye ku ci mel ni Maodo Malick mbayaat ku ci mel ni ñu ñëpp di suñuy niti bopp duñ fi ne di Mamadou Lam Mamadou Lamine Massaly mi nga xam barki démb la dem ci moom ñoom ñëpp duñ fi ne du du suñuy nit lañu waaye nag al aqrabul awla Bamba arab bi dañ ni lu gën a jige gën a yey keneen kun nu joxoñ naa doon ab jàmbur ci ñun waaye président Idrissa Seck ñun Thiessois yi ñun Sénégal yi ndax boo nee Thiessois yi day mel ni da koy tënk danga naan Sénégal yi rek mooy ñeneen ca diaspora ba ñu nekk ci réew mii ak doomi Thiès yi fii yowoo xam nañu ni ñoom bu wér ni lii ki nangoo ki nanguwul moo la gën a xam ni kenn képp mooy xam-xamu mën a doxal réew mi fi ñu toll nii ak 2024 gën jëm situation bi ki ko mën a réglé ba taw ju dib pënd wi du jugaat. jàmm ji mën a continuer tranquillité gi mën a continuer du kenn ku dul président Idriss Seck loolu rek la ñun nag loolu rek a tax ñu jug du caagi nag dàq ak mbokk wala du caagi nag wala nangam doomi Thiès la di doomi sénégalais dëkk ci dëkk bi am xam-xam bi réew mi di ko naw ko lool bitim réew bu fa demee ñu koy yàkkawli ko olof yi nag dana am bu gàtt ci laay daane la mooy am mbir te xamoo ko ñàkk ko te xam ko saxoo ko gën lool la olof yi di wax dañuy am mbir te xamoo ko ñàkk ko te xam ko sax ko gën waaye waaye ñun loolu bu mu doon ñun waa Thiès bu mu doon ñun waa Sénégal nanu góorgóorlu xam li nu yàlla jox te mooy président Idrissa Seck ñu jël 2024 bu yàlla dogalee ñu yëkkati ak jàmm ba war a jébbal réew mi ki ko moo nit ñi. fi ne nii yeewi na loolu ñu naan yeewi askan wi. nee naa moom gars yi tur wala ñu yor waaye moo yor jëmm ji ndax ba mu waxee ne askan wi moom. tënkatul kenn. li ma koy wax it wér na ma ne bu ñu déggantee dina ma ci fekk si. engagement bi ma jël dama koo nat <laughs> yàlla buy defar day mel ni kuy yàq yooyu nga fi wax yépp nit wut na ay at président Abdoulaye Wade ñaata at la laaj ñaata at la xeex bi yàlla dogalee mu war a jot <laughs> dafa yomb de na leer loolu dafa war a leer nanu xam ni président Idriss Seck maintenant loolu bokk na sax ci li ma gën a fàtte ceesuwaay yi ñu yeewu ba ñu déglu ñu naan leen ay dafa jeexal ak dafa nàngam tey la gën a taxaw na leer loolu na leer xam-xamu président Idriss Seck tey dafa gën a taxaw gën a mën a yor réew mi ay nitam tey lañu gën a taxaw ñàkkul kenn na leer yi ñuy wax yëpp da koo ñàkk génn fi benn tàllal loxo yi mu fi génnoon ni damaa soxla ceesuwaay yi xaaruñu sax muy dem di di mu leen koy laaj ko ko jox ci xol bu sedd guy. mais yii nga xamante ni wax nga ko mel na lu ñàkk te ñàkkul daa toog xool aw ñoñam nu mel ak askan wi ba ñoo demee xëj na lan woon askan wi loola moo tax li ko dal dal ko waaye taxul mu ñàkk dara nanu bàyyi xel loolu ñu yii suñuy nopp ak di nu di nu ñi ñi ñuy ma terrorisme àll terrorisme lañ koy wax xaw ma ñu bàyyi xel ni président Idrissa Seck fa mu ne woon démb ci kattan fa mu ne woon démb ci doole fa mu ne woon démb ci bayre fa mu ne woon démb ci ci mën a taxaw ngir réew mi mën a am jàmm ngir réew mi mën a doxal réew mi tey la gën a nekk tey la mbooloom gën a nekk ci ginnaaw man man mosumaa ànd ak kenn ci benn man mos bokk ci ginnaaw président Macky Sall gi taxaw fii di politique am ni te ka xataraan a ka tàccoog yuux kenn képp ama mos a dajalal presse da jaral dajale presse di wax ci moom te mooy président Idrissa Seck yéen sit yéen yéen may seetaan journaliste yi yéen a nii vaar yéen a ci gën a gaaw ban vaar ngeen ma yóbbu bu ngeen may tegal conférence de presse bu may taxaw di wax ci benn leader musta am na leer mi ngi doog a am fi réew mi toll tax na ma gën wax engagement bi ma jël te nag sama wax du bari fi ne nii coow li ku ne mën naa jël sa bopp bu ma nekkoon jël benn site wala benn kii toog sama bopp sama saal rara rara xataraayu mais lii du gaaw a benn yoon rek lay doon man daal ci gàttal sama leader laa roy ci loolu muy président Idrissa Seck li ñu koy faral di wax ndaamal ko joor bi bu xësee ba wax ren balaa waxati déwén foofu laa tënk samay kàddu di wax ne ci gàttal yéen waa bi. mouvement bii ngeen dégg léegi ma ko dafa am bu taxaw boo xamante ni moo may gunge muy bennoo bennoo ànd defar réew mi mouvement bii may taxawal fas yéene liggéey président sa set bennoo ànd defar réew mi ni tudd nañ ci bàyyi xel bokkut ak fondation njariñ li nga xamante man maa mën nañ ko jiiteel ay nit nekk ci ginnaaw di ay kilifa ñooñu dugaluma leen ci politique bi waaye bennoo ànd defar réew mi nag moom ne leen wéeri mooy tur wi nga xam ni mbooloo mi fas yéenee àndal fas yéenee dox jëm ca 2024 jébbal président Idrissa Seck Sénégal mbooloo mi noonu la tudd muy mbooloo bennoo ànd defar réew mi di ci woo mbooloo nag koo xamante ni leader politique dëkk Thiès moo xam nga nekk ci état fi ni toll nii moo xam nga ñàkk ceende moo xam nga yor ndoom ak tànk moo moo xam ne yàkk ñàkk yor ndoom bay tànk ñu ngi lay woo ci bennoo bii ñu woote ànd defar réew mi di wax nag xamante yàlla dogal na ndax dugg nañ ba pare ki dugg ba nag moom faaw mu boole ñëpp bopp wax wax boole ñëpp sëñ Babacar mooy yéen waa réew mi ñi nga xam yàlla boole loon nag président Idrissa Seck tàmbalee ko ci monsieur le ministre Yankhoba Diattara nanu ubbi suñ porte yi bu nu tëj nanu ko ubbi kilifa kenn du ko dar dañ koy darle porte yi nañ ko ubbi ku bëgg ñëw na ñëw ubbi porte yi xam ni kilifa seenee jox réew président de la république tous les Sénégal la war a rek daa ñun waa Thiès ñu war a njàmb rek jox ko déedéet Sénégal yëpp lay moom leader ba ne Tamba leader ba nekk Fatick leader ba nekk Kaolack leader bi nekk Dakar leader ba nekk Ndar leader bi nekk tous les Sénégalais ba ca nekk Diaspora maa ngi woon ñëpp ci lii nga xamante ni tey fa tabaarakallaahu moom laa fas yéene ànd ak président Idriss Seck liggéeyal ko ko muy bennoo ànd defar réew mi loolu daal mooy sama kàddu gu nga tudd comme ci mën a doon ci leader bu a taxaw 2024 laaj la ngay laaj ma yëpp. li may wax man mooy àndal mbooloo moom ngeen doon wenoo say ñëw topp ci président a Seck jiital ko ñoom ah, benn cër rek mbooloo mënu koo séddoo kenn koy séddoo li prés li jaar ci président Idrissa Seck ak li li mu def ci réew mi ñoo ñu def asaka ja yàggaguñ ca xalaatuñ ko sax pënd ba sax dabaguñ ko ci président Idrissa Seck koo mën a tudd ci Thiès gii muy leader boo xam 2024 war naa tàll loxo nanu doon wenoo say benn mat benn mat su ndaw maanaam des koy defee xamuk taar rek boy boyalkat yi bu ñuy boyal matt yu ndaw yi la ñuy damat fexe koo boyale ca ca doom ba lay mujj bu këriñ nga tàkkee ba nu taal taal bi ba matt yu mag yi tàkk ñooy ñoreel cin ñoo koy baxal ñooy defal lépp ba yëpp si sotti matt googu nag du kenn ku dul président Idrissa Sénégal daal bu nu bëggee togg gi nga xam président Macky Sall yàlla dogal na togg na ko ba yàq ba yàq ko yàq na lépp allahu akbar ba yekk ko teg ñu raxasu lu dugal suñu loxo waaye buñ ci xëpp suuf noonu booloo ñun leader yi ñun ñëpp yéen leader yi yéen ndax man ab soññeekat laa rek di dong fas yéene doon bàyyi faalu président Idrissa Seck ci benn ànd defar réew mi du ma ci njiit ab dong laa ci di bàyyi faal fas yéene laxasaayu rek liggéeyal ko ba mu am ndam ci réew foofu laa jëm. boo jëlee alal bi nga a defee tournée mi boo waxee ñu ne alal. moom laay wax mais mais dama ne alal baax na lool waaye alal yëga ko dàq ak ngoro am na ci ñu am nga am dañuy wax ni nit des na ko booleeg alalam toroxal des na ko booleeg darajaam toroxal des na ko booleeg wërsëgam toroxal des na ko booleeg sax kàddoom toroxal waaye ab yar am ngor nit du ko am mukk ñu koy toroxal wala ñu koy wàcce nanu bàyyi xel di jiital lii àddina la yar dafa laaj mooy waaye loolu yàlla dogal na ginnaaw kàddu gi jib na te engagement bi bi ñu ciy dugg duggewuñ ci neen loolu ñu ci dugge ba yàlla dogal ngeen daje fii tey jii lii jàll ci jàmm loolu mooy continuer ba leen bëgg lépp sa borom dafa ñu ci taw fex ñu am ko incha allah rabbi tàggoo gi mooy xanaa tàggatoo bu du tàggatoo sant leen rek yéen waa bi ndax lii ngeen def macha allah rabbi euh, am na solo sëñ Babacar Ndaw yow yaa sunu bunt wa aatul bu yuuta mi dabra biha bi ñuy coordonné ak gars yi yow la ñu jokkool nga def def di rafet ñuy waa diaspora bi ñu ngi seetaan direct bi gaa yi koy seetaan fi mu ne fii ba Amérique am na ñu fa ne ah di suñuy jigéen nga xamante ni Adja Kiya Kébé ma nga ca bitim réew ñu ngi ci live bi sekk ndaanaan taar kàlla TikTok bi ñu ngi yaatu waaye waa presse bi gërëm leen sant leen di leen xam ne ñu ne yéen ñoo bokk métier bi. man bu dul woon lii lu may def ca soññe précise laa ko defee maa ngi tey jii léegi bi ma fi jógee maa ngi guddi àjjuma 22h 23h. émission ak taxawu nu alal birri wa taqwa man ak sama nijaay Adi Mbaye oustaz Adi Mbaye moo laa ji njaase ci yooyu ci lan ne waaye fi réew mi toll nag buñ dee wax ba ñëpp xam nu aj Babacar jaadu na ñu wax ba ñëpp dégg nu ci lii nga xamante ni circonstance réew mi toll fi ñu taxawal nag samp sunu waay ji nga xamante nii nag amuñu ku dul moom amuñu nit ku ko gën ci réew mi di leen sant di leen gërëm sant sunu mbokk yu baax yi fi teew muy fa tabaarakalaahu samay soxnay ak samay soxnay euh, bopp ak samay samay waa muy waa ak ak euh, sarkala fàttali nga ni bàyyi ko doon bàyyi Abdoulaye Touré di waa mouvement bi nga xam ñooy fondation ñëriñ ñi ñii ci lañ bokk fi ne fondation ñëriñ ñi ñii toog kenn jiituwu leen ci ñooy payé ndax ñoom ñii nga xam ay jigéen lañu fondation bi dafa am ñeent yu ko tënk muy fondation góor yi nga xam ñu ngi ci jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ay sëriñ daaraa ngi ci ay borom xam-xam ngi ci ay jàngkat nga te ngi tàggkat yonent bi ñu ngi ci ndax man ku ma xam xam na ci géew yi nga xamante ni moom la ñuy tàntal yonent yàlla Muhammad loolu la ñu nàmp mooy suñu yëngu ci la ñuy tey te ñu ngi ciy lancé appel na bi yëpp ñu ñëw topp suñu ginnaaw ñu fas yéene liggéey réew mi ma am ki nga xamante ni itam moom la ñu yàlla booleel ci presse muy DG bu Doumbia nekk ak ñun jël ñu ci teleem ñu koy liggéeyal ñu koy sant gërëm ko ndax bu nu demee tey ba réew mi ràññeenu xam na ba nu am sañ-sañu toog di wootee point de presse yàlla nga ko jaarale ak grâce ci moyen walla yaatal ak ubbi gu mën a ubbil boppam ci prestige ba yàlla dogal réew mi tey kenn laajteetu na macha allah rabbi ndax ku ne xam ne ni presse dafa euh, am solo ci réew mi ak communication waaye bu nit ñi ñuy dégg ba ñuy rafetlu ak dinu dinu yàkkawli ko yàlla nga ko jàlle ci prestige sant ko gërëm ko nuyu itam fa tabaarakallaahu ah sama waa ji di Ibra Fall nga xam moo fi teewal waa Cees ca kanam nuyu ko gërëm ko siyaar ko ndax ñëpp ñëw nañu tarkala boo wootee nit ñi ñëwal la joojo si la sama xarit bi nga xamante ni moo doon coordonné yor lépp loo xamante ni moo jëm ci wàllu organisation bi ak xarit jaari jéyeeg seen di journaliste mag nekk ca Ndakaaru lool daal mooy tàggatoo bi Alaaji euh, Babacar jox leen rendez-vous ba fan yi incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatulah